أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضر لنا بهذا المحضر والتعطيب بلغة ذات لنا بالظفر suratu taxaabuni saaru xëbante makkiyatun koj ak makka la aw madiniyatun wala kojug medina la dañ cee werante ñu ne saar wi ci makka la wàcc ñu ne saar wi ci medina la wàcc waaye li gën a wér te mu xaqiqiina yi wax ko ci saar wi mooy daf ci am ab xaaj boo xam ne makka la wàcc am ci ab xaaj boo xam ne bii medina la wàcc loolu moo tax werante nekk ci saar wi ndax makki yi la wala mid- madani yi la ndax laay waxtu wu wàccaan bu laaya wàccee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ne nañ ko def saar sàngam ci diggante laaya sàngam ak laaya sàngam bu fekkee saar wi wàccandoohut benn yoon jumlatan waaxidatan am na saar yoo xam ne noonu lañ wàccee bu ko defee nag lépp lu wàcc te bokk ca saar wa yonent bi dana wax saar wi mu bokk dana wax it diggante laay yi nga xam ne ca lay nekk loolu nag moo wàcc moo nekk ci saaru taxaabu am na ci xaaj bu gën a bari ci moom dafa wàcc ci Medina am na ci lafit loo xam ne ca Makka la wàcc yusabbihu dana sàbbal yusabbihu dana sellal lillaahi ñeel yàlla maa fi samaawaati la nekk ci asamaan yi juróom-ñaar wa maa fi lardi ak la nekk na ci suuf yi juróom-ñaar yooyu yépp a ngi sàbbal yàlla ñu ngi koy sellal lahu aji nekk la ñeel ko moom buur kowe na almulku ak góor wa lahu aji nekk la ñeel ko alhamdu cant lépp moo ko moom wa huwa te moom buur qadirun aji xattan la mu ala kulli shay'in ci lépp lëf moom yàlla mooy buur nguur lépp moo ko moom mooy ku yeyoog cant ndax xéewal yiñ gis ak yiñ gisul yépp moo ñu ko defal te itam ku am kattan la ci def lépp loo xam ne lii lu mu bëgg a def la wa moom buur la di mooy ki nga xam ne xalaqakum bind na mu leen yàlla mooy ki nga xam ne moo leen bind fa minkum aji nekk la mu ci yéen kaafirun aji weddi ndaxam am na ci yéen ñoo xam ne dañuy weddi wa minkum aji nekk la ci yéen muuminun aji gëm ci cosaan ak bind gi dana leen dana leen moo leen bind def ci yéen yéefar def ci yéen kuy gëm wallahu yàlla basirun aji gis la mu bi ma taamaluuna ca la da ngeen jëf ko te dana leen ko bind saaru taxaabun bii nag firikat yi am na luñ ci wax ne na lu tax ñu li gën a tax ñu tuddee ko taxaabun mooy boo dalee ca bopp baqara di lim saar yi ba nga egsi fii dangay am juróom benn fukki saar ak ñett mu tolloog dundab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy juróom benn fukki at ak ñett kon nag moo tolloog limab saar yi dalee ci ba baqara ba fii moo tolloog loolu loolu moo tax ñu tuddee ko taxaabul mooy tëbante ak xëppalante ci lu baax wallahu yàlla basirun aji gis la mu bi ma taamaluuna ca la da ngeen jëf ko xalaqa bind na mu moom yàlla assamaawaati asamaan yi juróom-ñaar bil xaq mbir mu ñuy aji làmboo dëgg yàlla moo bind asamaan yi juróom-ñaar ak suuf yi juróom-ñaar te bind leen itam ci dëgg wa sawarakum te mellal leen fa axsana tam rafetal suwarakum ay melo seen mu mellal leen rafetal itam seeni melo wal masiru delluwaay ba ilayhi jëm na ci moom te ëllëg ki si biir itam dañuy dellu jëm ci yàlla yaalamu dana mu xam moom yàlla maa fi samaawaati la nekk na mu ci asamaan yi juróom-ñaar wal ardi ak la nekk ci suufi juróom-ñaar wa yaalamu dana mu xam maa tusirruuna la da ngeen yalu ko la da ngeen nëbb ko ci seen biir wa maa tuxlinuuna ak la da ngeen feeñal ko li ngeen di nëbb ci seen biir ak li ngeen di feeñal lépp yàlla xam na ko wallaahu yàlla alimun aji xam la mu bi zaati suduur yi ci ci la ca biir dënn ya li nga xam ne lii moo nekk ci biir dënn yi ci mbóot ci li ngeen denc ak i pas-pas lépp yàlla xam na ko te dana ca jëflante ak yéen alam yaatikum ndax dikkalu leen woon yéen yéefaru màkka naba'u alladina solos ñaaña nga xam ne kafaru weddi nañu min qablu ca njëkk ndax solos ñi nga xam ne dañoo weddi woon ca njëkk seen dikk yéen ndax seeni solo dafa egseegut ci yéen fa zaaqu mos nañu wabaala amrihim mu mbu mbu mbuga mujj ak mbit seen toskareem toskareeg ak mbit seen la nga xam ne lii mooy toskare ga aju ca ñoom ci seen mbir ñoom mos nañ ko walahum war na ci ñoom adaabun mbugal alimun mu di borom ak métital ña leen jiitu woon de ba ñu weddee mos nañu seen toskareeg mujj ak mbir te mbugal mu métti war na ci ñoom ëllëg ci àllaaxira lu bokkut ak mbugal mi ñu leen mbugal fii ci àddina zalika loolu le moo ma leen mbugal ci àddina bi anna bi annahu ci naka moom kaanat nekk bi annahu ci naka luy mbir tey mbir kaanat nekkoon na taatihim di dikkal leen rusuluhum ay yonant seen bil bayinaati ci lay yu weex lu tax loola seen yonant ya dañ leen daal indil ay lay yu weex tal yuy tegtale sama wéet ak sama kattan ak kéemtaan yoo xam ne joxoon naa ko yonant yooyale ñu won leen ko fa qaalu tañ wax ne abasharun mbindeef rek moo xam ne ci suñu xeet la bokk yahduna naa danañu jubal yahduna naa dana ju danañu jubal ñu fa kafaru tañ weddi wa tawallaw tañ dëdd walis gëm li leen teree gëm yàlla kat ñu ne nit mbindeef nit ki ñun ñoo ñuy jubal ñoo ñuy teg ci yoon loolu mën tax loolu moo leen taxawet wastaxnaa te doylu allahu yàlla walis seen ak gëm yàlla doylu na sax walis ñoom ñuy gëm wallahu yàlla ganiyun aji doylu la mu walis ay mbindeefam xamidun kuñ santi jëfam la zaama nee na ladina ñaaña kafaru weddi nañ am naka luy mbir teg mbit lañ yubaasu dekkaleef ci leen ñi ñii wax nañ ne nee nañu kenn du leen weddi wax nañ ci waxi yaaram ne fen bu amoon sant defee lay sant fen bu fekkoon ne am na aw sant mooy def la defe naa nangam mu ne mooy sant fen ñoom it nag loolu lañu wax ne defe nañ ne dokki du am alquran ne qul waxaleew yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne balee aanaam def na dekkal leen wa rabbi géñu na ma borom sama la tub asunna xal naa dekkal xal naa dekkal leen xal naa dekkaleef leen su ma la tunabba un na topp def na solo leen bi ma amiltum ca la da ngeen ca la jëf ngeen ko wa dalika te loolu la yasirun aji jàppandi la ala allahi war yàlla danañ leen dekkal waxuñ yem ci dekkal leen rek danañ leen wax itam li ngeen jëfoon te loolu lu jàppandi la ci yàlla kii defoon sos bu njëkk gi tey bu fekkee ni kii dafa bëgg a defaat defaat gi mooy gën a yomb ci moom fa aminu gëm leen billaahi ci yàlla wa rasulihi ak ab yonentam na ngeen gëm yàlla gëm yonentam wan nuuri ak leer ga te mooy alquran alladi alquran da nga xam ne anzal naa wàcce nañ ko wallahu yàlla bi ma xabirun aji xam la mu bi ma taamaluuna ci la da ngeen jëf ko yawma yajmaukum bés ba mu bés ba dana mu boole leen li yawmil jamci ca bésam moo boole ba te mooy bésab yawmal qiyaama mooy bés pénc zalika loolu la yawmu taxaabuni mooy bésab xëppalante ga mooy bésab xabante ga loolu foofa la xabante mën a amee mooy fi ki nga xam ne taxaw na ci kanam boromam wax lay ba ne mucc naa dem aljanna kooku moom foofu la xëbante war a mën a amee waaye fekk amul kenn warta xëb sa morom wala mu lay layam dëng mu ne torox naa nar a jëm safara yàlla ñu ci yàlla musal mu ne xëbante ga ca bés boobu la def waman yumin ku gëm na mu billaahi ci yàlla wa yaamal ten jëf saalihan jëf ju hiw nu kaffir dana nu kaafara anhu walis ko sayiaatihi ay ñaawteefam képp koo xam ne kii gëm nga yàlla gannaaw boo gëmee yàlla nga teg ca di jëf jëf yu hiw yàlla nee na dana ko kaafaraal ay ñaawteefam wa nudxilhu te ñu tarfe ko jannaati ni tool te jiri yooyu dana daw min taxtihaa ci suufam al anhaaru yool yi ñeent xaalidiina mbir muñ di way nattaleeg bel fiihaa ci aljanna joojale abadan tappet zalika loolu le alfawsu moom a dig texe alazimu ga di aji màgg walladina ñaaña nga xam ne kafaru weddi nañ wa kazabu tañ narloo bi ayatina ci alquran sunu ulaayika ñooñu la gaay asxaabu néeri ñooma di warami safara xaalidiina mbir muñ dooy nattaleeg bel fiyaa ca safara wa biisa bann almasiru mujjuwaay ba ndem safaraaha maa asaaba lu jot na min musibatin ci musiba illaa bi idnillahi ndara ci ndigalal yàlla lu mën a xew moo xam xew-xew ba xew-xew ab bànneex la moo xam xew-xew ba xew-xew xew-xew ab safaan la mënta am lu mooy ci ndigalal yàlla wa man yuumin waaye ku gëm na mu billaahi ci yàlla yahdi mu jubal qalbahu xolam bu fekkee musiba dal na nag fekk yaa ngi gëm yàlla yàlla dana jubal xolam jëme ko ci muñ wallaahu yàlla alimun aji xam la mu bi kulli shay'in ci lépp lëf wa atiu toppaleen allaha yàlla wa atiu toppaleen ar rasula yonent bi fa in tawallaytum dem dëdd ngeen fa innama ala rasulina naka déddi war ab yonentu sunu alba naka naka dana war ab yonentu sunu albalaaxu ak jotal almubiinu ga di ajibbi bu ngeen dëddee nag suma yonent bi ma yónni ci yéen dara waru ko lu may moom mu jotal leen bu leen jotalee nag ba ngeen dégg moom wàcc na allahu yàlla laa ilaha déet bu bayee jaamu illaa huwa ndare moom wa ala wa falyata wa wa wa alallaahi ci yàlla falyatawakkalina wakiilu almuminuuna way gëm ña te ñi gëm yàlla buñ bëggee wakiirlu nañ wakiirlu ci yàlla yaa ayuha alladina amanu inna min azwajikum wa awlaadikum aduwan lakum faxdaruhum loolu ñu ne wàcc na ci sa benn saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo xam ne mu ngi tudd awf ibnu malik awf ibnu malik moomu dafa nekkoon nit koo xam ne ku am njaboot la waxtu wu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ootee jëm ci xare jabar yi ak doom yi ñëw daanu ci koom di jooy naan ko boo ca desee koom yuy bàyyee nangam nangam bu ko defee rek mu nekk góor goo xam ne góor gu sew xol la bu ko defee mu toog du mën a dem alxuraan di ko wax nag ne ko yéen yéen ñi gëm yàlla lenn ci seeni doom ak seeni jabar noonu la ñeexal leen na ngeen leen jàpp mbir noonu doo waxut ne faxdaruhum na ngeen leen wattu na ngeen leen wattu ci ñu bañ leen a moyloo ndigalal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ngeen xamee ne bu ngeen leen toppee da ngeen wuuteeg li yonent bi digal ci dem ci jihaad ak gàddaay kon na ngeen wattandi ko loolu wa in taafu ndem jéggal nga leen yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa tasfaxu te ngeen bay te ngeen jéggal ba jéggale ba tey wa taxfiru te ngeen baxal fa inna allaha naka yàlla xafurun aji bayi la mu ñeel leen raximun aji yaram la mu leen innama amwaalukum naka ay alal seen wa awlaadukum ak i doom seen fitnatun fitna la su di aji soxlaal leen walis mbiri àllaaxira seen alal yi ak seen doom yi fitna la yoo xam ne daf leen di fitnaal walis ngeen hittewoo mbiram àllaaxira wallaahu yàlla indahu aji nekk la fa moom ajrun ab yool azimun bu di aji màgg na ngeen sàkk yool booba ci hittewoo ndig ndigalam yi ak bayi teram yi fattaqullaaha ragal leen yàlla mastataatum lu ngeen xattan na ngeen ragal yàlla seen kemb kàttan borom jalaal ne moom la nasxoo taqullaaha xaqa tuqaatihi wa nga xamee ne bi moom la digal saxaaba yonent bi ak yonent bi ne na ngeen ragal yàlla dëgg-dëggi ragalam maanaam bu leen wuuteeg moom ci dara lépp loo xam ne li mooy ragal yàlla rek na ngeen ca ne mu ne nag bi mu indee fattaqullaha mastataatum ragal leen yàlla seen kemb kàttan mu ne loolu moo ot moo moo folli laaye bi njëkk ja wa atiu topp leen wa anfiqu dundule leen xayran muy nekk di aji gën li anfusikum ñeel bopp seen ñu ngeen dundalee mooy gën ci yéen wa man yuqakum musaleef na ko nag suxa nafsi yi naayeg bakkanam fa ulaayika ñooñale gaay hum ñoom almuflixuuna ñooma di way texe in tuqridu nem leb lebal ngeen allaha yàlla qardan ak lebal xasanan gu di aji rafet yu daa ifu dana mu ful ko lakum ñeel leen bu ngeen lebalee yàlla lebal gu rafet mu ne yàlla dana leen ko fulal wa yaxfir te muy baal lakum ñeexal leen wallaahu yàlla shakurun aji sant la mu ñeexal ñi nga xam ne ñu ngi koy lebal ak ñi koy topp xalimun aji lewet la mu ci yéexe mbugalam aalimul xay bi mooy aji xam faddu wa shahaadati ak ak teew al azizu moom a di aji not ci nguuram al xakimu moom a di aji xelal ci njëfteefam solo nañ ko lii ci abi hurayrata radiallahu anhu ak abi saidin alxudri yonent bi salallahu alayhi wa sallam ci waman yuuqa shuxa nafsihi mu ne assaxaau shajaratun fi ljanna mu ne tabe garab la goo xam ne gi mu ngi sax ca aljanna ay bànqaasam ñu ngi nekk fii ci àddina mbindeef moo xam ne nag yàlla dimbali na la nga tabe ne la wóor ne yaa ngi jafandu ci bànqaas ci bànqaas ci garab googale doo ko bàyyi ba ba ngay tabbee ak moom aljanna mu ne na itam ak garab la boo xam ne mu ngi sax ca safara bànqaasam yi ñu ngi nekk fii ci àddina képp koo xam ne kii dangaa nay ne la wóor ne yaa ngi jàpp ci benn bànqaas ci bànqaas ci nay yooyu te doo ko bàyyi ba mu yóbbu la safara yal na ñu yàlla musal ci nay kon nag dund la googu moom la yàlla digle lépp luñ ci dund la yàlla ñu ko yàlla nangul اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا ولينا على اخره monsieur la ñuy faar yal nañu yàlla may dal yoon bi monsieur la ñuy njuumte yal nañu yàlla baal te xamal ñu ko yàlla xam ne ca dëgg dëgg yàlla ñu ko xamal te defal te defal ñu ci barke ci alquran yàlla ji ak ñu ko wàcce ci moom ak ñu tax ñu wàcce ko ci barke bi leen islam yal nañu yàlla defal jàpp ci réew mi yal nañu yàlla defal jàpp ci dëkk bi yàlla yàlla defal jàmm ci mboolem réew yi nit ñi def ñu ngi fàttali suñu bopp di leen fàttali ni ñu ngi nekk ci weeru koor seen waxtu ci weeru koor seen waxtu ci weeru ñaar nañ jublu ci weeru ci ak suñuy xol te tàllal ko suñuy loxo ñaar yàlla defal ñu suñu bëri bëri teggil ñu mboolem fitna yi teggil ñu mboolem balaa yi yàlla defal loolu